Seydi Lamine gannaaw buñ ñu nuyoo xalifa bi ñaanal ko yàlla boole ko ko mook boroom gàmmu gi Seydi Mouhamadou Lamine ak imaamul akbar ak porte ak mboolem sang yi fi jógee ñi ngi lay nuyu boole la ko yàgg sa mboolem rakk yi nga xam ne yéen a garde ndono lu cher lii te dara sànku ci di nuyu suñu yaay jaxate ak mboole mi rakkam ak seeni doom waxtaan bi dana gàtt ndax nodd nañ nodd bu njëkk te dañuy dellu ci si kër si ndax nit ñi yóbbaale seen lañc ndax waxtaan woo xam ne ci kaaf benn baatu kaaf ci lañ koy bëgg a teg mooy du gudd Mawlaay El Hadj Ousseynou Baay daf ko teel a xamal bu baax kaafu xitaab bi nga xam ne ci la Baay waxe woon ci ziyaara ne yonant bi jógu fi te mosu fee jóg te du fi jóg daf ko teel a wax daf ko teel a xamal Baay laa jox seeni ñas ndax Baay dafa wax ne aay ji wax ne walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka ka boobu fastaxfaru llaha wastaxfar te wastaxfarta lahum la hmm? wastaxfar wastaxfarta lahum dañoo bi jéggalul leen la wajadu llaha tawaaban rahima mu ne kaaf googu day wane ne yonant bi mësu fee jóg te du fi jóg ndax ba fi jëmmi zaahiram jógee Abubakar ak Omar xulafaa yi dañoo ñëw ñu jógee fi elimaani ngir yi ñëw ñu jógee fi e, sëriñu tariqa yi ñëw te ka man mooy Cheikh na Ahmada Tidiane te yaakaar naa ne yéen ñi may wax waxat am na ci ñoo xam ne dégg nañ li may wax mooy ne Cheikh Tidiane mas ta tàggoog man te ñi ma nàndal xam nañ li may wax loolu loolu moolaay xaaju seynu ci la bokk wazaaka amrun taalama adnaani sàmm kóllëre yar na ma sonal yàgg na ma sonal dama ne tàmbaleehut ca saraale yoon ja ma nga tàmbalee fa ñu ko Baye Mamad bu nettalee mooy bi Baye Laaji Babacar mi Baye doon wax ne moom lay xoolee sama bëtu baay manoon njabootam lool ci njëlam ba mu fi jógee Cheikh Ibrahim su su uuf leen bay Mamad ne na buñ daan lekk ci perron bi lañ daan lekk bàyyi daf leen daan tiim di xool li ñuy lekk ndax doy na kon kóllëre gi dalewut ba mu demee Sierra yoon jëli ko mu ne bés bàyyi jóg di beesal njàpp fekk ubbeeguñ ndab li ñu ubbi bi muy ñëwaat mu jeex mu ne ana seen añ ñu ne ko añ nañ ba pare mu ne lii du añab waa kër Alaaji Babacar daal di yónnee xar ñu ko mu toog bañ suur yàlla may ko nag mu teel a am hitte ju kowe ndax am na ci loo xam ne ndone la personnalité bi ndone la ndax ku maam alaaji yar-yar boo xam ne ci yaru diine ñema nga ilimaan ju em ni maam alaaji bu tardé nga ne bàyyam ak waxtu mu ñëw nangul la ko personnalité bu kowe boobu doon na ko waaye nag yar bi nga xam ne moom la ko cheikhul islaam yar ba nekk kiiraayam digganteem ak baayam baay ju mag jooju loolu mooy forsam loolu lim def yépp ci la ko defee ndax boo jàngatee léppam mat na ndaw ñi leçon gaal gi ko yóbboon bi muy dem waa ji boroom gaal gi bi mu xoolee carte d'identité dafa tiit ne ko yow ñu at yi ngay am di am di am carte d'identité loolu mooy hitte ju ci boo buggee jóg génn tekki mu njëkk am néeg boo xam ne bu bàyyi amee gan fala koy dalal ci biir këram dàqoon fee solo ba képp ku ànd ak moom bàyyi yónni la bu taxawee nga taxaw bàyyi ne la demal solo ci mais yar bi ko yar bàyyi bi yar bi mu ko yaree woon baat boobu mu wax ne arudduhu lil bi nit ñi dañ ko seetluwut mooy jëliwuma ko pour dugal ko daara dama ko delloosi ci daara ji ci daara la jóge te ba mu demee bàyyiwul daara ji liy tegtal bi mooy bi ko bàyyi di indi man moo ma nettalil làmmiñam su ma nopp mu ne ma bàyyi bi ma téyee suma kaamil bi ci avion bi euh, ndaw si nga xam ne mooy euh, maanaam autiste bu góor bi di waaxu noonu di joxe ay kaasam ba pël suma kaamil bi mu rot bi ma ko jógee bi ma ko dóoree pour kurpen avion bi yëpp dafa yëngu kon kooku jëliwuñ ko woon pour dugal ko daara dañ ko jëli woon ngir sàmm kóllëre waaye ma nga woon ak daara fam ne woon ba bi mu duggee ci avion bi kaamilam bi nga xam ne musta tàggoog moom dóor na ci nit kurpañ ba mu daanu kon loolu yëpp exemple ñi ngi ndokkeel njaboot gi yëpp ci aarifu billaahi bu mag boobu nga xam ne lim defar ci ay nit bu emoon ci njabootam gii rek nga xam ne ñi fi jógee ñëpp wax nañ li ñu wax ci ñoom te de olof dafa wax ne foo fekk góor gu mag jigéen ju mag a ci peggam looloo tax ñuy nuyu suñ yaay ndax li fi Cheikh Bachir wax ne amut fi koo xam ne ci dëkk bii Bachir Cheikh Bachir mag la de wax na fi mag ne ko li ma magee suñ ko dindi woon ci su ma li ma magee su fekkoon ne suma at yi dindi nañ ko ci sa yos rek nga dellu ci mbóotu kooku bu ne amut ñun ñi kenn ku sukkut fii mbaa nga sol mbubam te bu la neexee nga dolli ci mbaa siwóob basaab bi daan tege fii ci ron mango gi ñëpp naan nañ ci kon kooku dafa teel a tekki teel a xam li tax bàyyi samp dëkk bi mooy jaamu yàlla xam yàlla liggéey yar sa njaboot ci loolu dimbale bàyyi ci dëkkam bi ndax koo xam ne sa oto booy dem da yeb nit ñi buñ taajee ndab li fii yàlla jiy taw kenn ñëwut day taal otoom bi di wëri ñiy añ kon duñ ko guddal dañuy wax rek ne koo xam ne bàyyi lim indi nga xam ne mooy li yonent yëpp enoon moom mu aw ko amee meññat mi kum ci xaasal ba nga xam ne mën ngaa def toolu dëru aljanna fii ci àdduna bi at mu jot nit ñi toog ci di ci for parce que yonent bi moo ko seede moo ne bu ngeen rombootee dëru aljanna ci kaw suuf dem leen watte ca ñu ne ko mooy lan muy ne mooy foo xam ne dañ fay dajel di tudd yàlla ñoo xam ne dañuy ziyaarante ngir yàlla bëggante ngir yàlla kon ñi ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne amoon na ko ci ay mëdët te mu nekk di lu óor jógee ko ci Mawlaana Cheikh Ibrahim te xam nañ ne dagg yàlla na ci xaasam dem njabootam gii nga xam ne ñoo garde ndono li te dara sànkuut am na ñuy wax ne euh, picc euh, euh, puso bi réeréewu ci ñun foofu laay tëjee ndax waxtu wi jeex na beneen yoon moom bala ma ñëw damay jékki ba heure bi jot sëñ yi dafa ma yónni benn jotaay ma ñëw mu ne ma déglu naa la bàyyi waaye dog nga yoon wi ma ne ko alhamdulilah lu xew mu ne ma bi nga demee lycée euh, euh, euh, Albouri Jolof da nga wax xale yi ne leen fexe leen ba pousse bi réeree bu mu réeree ci yéen loolu la mag ñiy wax waaye man duma leen wax ne fexe leen ba pousse bi réeree bu mu réeree ci yéen parce que buñ la joxee puso nga téye puso muy xoomaak te réerut dara man dama leen di wax ne fexe leen ba puso bi ngeen soppi ko machine waa kër Alaaji Ousseynou njabootam yëpp góor ak jigéen ci njiital Cheikh Lamine puso bi ñu leen bàyyi woon soppi ngeen ko machine tànt bi gën naa rafet gën naa taaru nit ñi gën nañoo màndi si kër yépp a ngi dox relation yi yokku na yàlla na yàlla dolli leen def dolli gi mu def ko ci seen fan seen wërsëg seen wér-gi-yaram barkeel seen njaboot euh, kebe bisimilah wasalaamualeykum wa rahmatullah